Salut la famille j'espère que vous allez bien gannaaw bu ñu leen nuyuwee jox la seen wàccuwaay tey nag ñoo fi ñëw nar a wax ci Fadam 2 gannaaw bu Birame Souleye Diop génnee ne bu ko kenn parrainé bu ko kenn tuddee làmb bu ko kenn tuddee match de football et cetera et cetera Fadam dafa génn di rey làmmiñ naan daf koy jéem a yàq deram naan daf koy jéem a tontu ndax bu leen fàtte ne Fadam moom moo fi nekkoon di campagnal kii di Amadou Ba. kon tey jii nii bu ñëwee di wax naan dafay jéema a kii di Birame Souleye Diop ay intérêt personnel am moo tax muy wax mais pas ahlu làmb moo tax muy wax mais nag bu leen fàtte ne tamit la majeure partie ci mbër yi ñoom Amadou Ba lañ doon jàppale nëbbu ñu ko gannaaw bi nga xamee ne nii tamit sénégalais yi nekkoon nañ ci ay jafe-jafe ñu leen di rey ñii ñu leen di métital ñoom dañoo yolleeku woon nànk dem seeti ji Macky Sall mais avant ñu dugg ci sujet bi. dañuy ñaan képp ki nga xam ne nii gan nga ci chaîne bi wala yaa ngi soog a seetaan suñuy vidéo t'abonné goo nga abonné ci chaîne bi aimé vidéo bi te nga wax ñu sa xalaat ci commentaire yi sama gars yi aimé leen vidéo bu baax a baax loolu mooy tax YouTube mën a conseil suñuy vidéo ñi nga xam ne nii aboneeguñu ci chaîne bi ñu mën ko seetaan dem ba abonné ci chaîne bi. bu dee yaa ngi doog a seetaan suñu vidéo bul fàtte abonné liker partager parce que ça nous aide vraiment. li gouvernement di liggéey. bàyyi leen xel liggéeyal leen may wax ne ma bëgg ñu déglu ma bu baax a baax may wax ne gouvernement bi tey amu ci kuñ ciy fekk ci làmba ñu koy koy tudde du am ku ñuy fekk ñu koy tuddee ngénte ma wax ko mu leer du am ku ñuy tuddee match football ndax tur wi turu senegal dong la Birame Souleye ku ko tuddee làmb yàq nga sa yàq nga sa activité ku ko tuddee ngénte yàq nga sa activité Sénégal dong lañuy ñuy tuddee Sénégal la ñuy liggéeyal kenn wutu ci tur kenn wutu ci barke kenn wutu ci loo moomal sa bopp lépp Sénégal lañ koy delloo. kon nañu xam ni dinañ liggéey ci tekk ak tey ci dal def ni ko président de la république Bassirou Diomaye fay waxee premier ministre faylu ko ci mooy jub jubal jubbanti te yam ci lépp nag def ko ci maandu. xam ni lépp lu ñu def sooba ngoon jot Sénégal moo ko moom Sénégal lañ ko war a delloo askan Sénégal lañ ko war a delloo. loolu moo nekk ci projet bi ñu porté ñuy bëgg wax ñëpp nag bépp na ñu jóg ànd ak gouvernement bi dimbali ñu ci lii. te am nañu yaakaar ni xam nañu enjeu yi sénégalais yi xam nañu enjeu yi donc danañ ànd ak ñun ci lii defar sunu dëkk defar sunu askan. na wala amul. waaw ah, loolu dafa leer. dëgg du romb nopp. Birame Souleye boo amee loo xam ne ci làmb lay jëriñ. nang ko lek wala nga teeku bo amé lo xamné ni lamb di ci jëriñu nang ko tee yow lamb yaakaru la lamb xalatu ni sax yow yaangi dundu ndax ties ga nga yu ya fay dundu sport gëna sonn ci sénégal amo dara lo mëna apporter sénégal amo dara lo mëna apporter sénégal waaye jàppal ne baat dangaa bëggoon a feeñ dangaa bëggoon a nekk ci kaw feeñ nga waaye dootoo waxati boo weddee lii ma lay wax dama nga laaj ñi daan xeex làmb démb ak bërki démb fan la ñu ne dama nga laaj ñi doon xeex làmb démb ak bërki démb fan la ñu nekk dangaa laajtewul te lii nga def ni sa président bi nga xam ne moo la jox njiit gii nga am du ko def ndax xalaatu ko arrêté leen sénégalais mooy fekku nekkul dara mu bëgg koo def dara yow làmb doomu aadama yi ci bootu am ay champion yoo xam ne ni seen carrière ñoo gën a métti sa carrière lan nga def ci senegal lan lii damaa bëgg yow ñu ñu ñu ne ñu Birame Souleye Diop moo def lii ci réew mi lii lan nga fi def lan ne ñu lii nga fi def balaa maa dee ku ci bëgg xam la nga jël micro naan waaw ah, làmb ay amul lu ñuy présider làmb yéen làmb kan lañ fi présider ku ñu siiw nel kii la da ngeen fexe drapeau chef de l'état bii ñu leen jox nii ngeen jil ko yóbbu ko ci niveau bi mu nekk làmb kan lañ fi pare ne kan pare yi nga daan dégg ci làmb yépp ñooy woo promoteurs yi promoteurs yi nag jot na ngeen gën a yeewu xam li ngeen yor lan la ndax ñi ngeen doon dimbale démb yépp ñu ngi leen di xas tey waaye nag jàppal na leen ma wax la ko gis ngeen la fi teg nii tegi fi lu yomb la dama bëgg nga xam ne baatu yàq moo gën a gaaw defar te yàq gën yomb teggi sa bët teggi sa xel mi ci waa làmb boo ko deful doo fi yàgg de arrêteel arrêteel bu baax nag arrêteel bu baax man maa la ko wax dafa jot làmb li ci bootu ñu xam ko ndaw ñi làmb fekkoon ñu war a wàcc yoon làmb tël leen def leen ñu nekk ay ay leader ñaata xale la làmb fekk ci kaso bii gën leen def leen ay leader ñaata xale la làmb fekk amuñu xëy amuñu ngont mu jël leen def leen ay leader def leen ay sportif ñaata xale daan dox ci mbedd mii di nangu lu ñu moomul làmb jël leen def leen ay leader kañ la làmb di dégg ci yéen lu baax ku ci bëgg a siiw fréquenter làmb boo siiwee xas làmb. fermement. moi je suis ndayam li ah. eh. yéen. sama gars yi vidéo bi ñoo ko seetaanandoo dégg nañ kàddu yi nga xam ne nii kii di Birame Souleye Diop yëkkati na ko ak kàddu yi nga xam ne nii. kii di Fadam 2 nee na moom daf koy tontu mais nañ leen dem seetaan ji vidéo bi nga xam ne nii mooy wane ne Fadam 2 bi muy wax na ne nañu jàppale kii di Amadou Ba nañ leen dem seetaan ji vidéo bi te ñëwaat. réew mi maa ngi leen nuyu bu baax di leen ñaanal jàmm li may wax nii lu ma ñor la li may wax nii lu sori ci man la. bi élection présidentielle yi commencé ak ngirum politique bi yëpp boobu ba léegi maa ngi toog di déglu di seetaan di xool gars yi li ma gis man te mën koo wax mooy gis naa kenn koo xam ne nii ci réew mi na ko sénégalais yi gën a bàyyiwaat xel ci lii ma leen di wax muy président Amadou Ba xam nga tax ma bàyyi ko xel amaru Ba campagne am yëpp li ci ëpp solo mooy ci suñu njaboot ëllëg. mun jeunes yi lan lañu war a mën a am ci réew mi ëllëg li may wax nii man ànduma ak kenn mais li tax ma am choisir ci Amadou Ba man Fadam man li tax ma choisir ci Amadou man maa ko xam te jël naa samay engagement ci moom ci liggéey ci lépp li tax loolu mooy day kenn ko xam ne nii képp kuy jeune ci réew mi war ngaa bàyyi xel kan ni président Amadou Ba bàyyi leen xel bu baax ci lii ma leen di wax ambition yi muy teg communication wu Amadou Ba ci réew mi waxul ngir puukare waxul pour nit ñi yuuxu ko waxul ngir lu tax nit ñi topp ko day wax li nga xam ne nii pour mooy ëllëg suñu njaboot yi nga xam ne moom lañu war a ñëw nan la ñuy def pour bu ëllëgee bu ñu jàngee mu mën a réussir bu ñu liggéeyee ñu mën a am bu ëllëgee ñu xam fan la ñuy teg suñu tànk ci réew mi ñun nag jànguñu waaye kenn mënuñoo nax ci ay wax te seetlu nañ ne sénégalais yi ci bëri bëri bëri bëri tey jii ñu ngi commencé gindeeku ci kanamu sénégalais yi ak képp ku mënti doon man Fadam day jël naa samay engagement ci Amadou Ba mi tey mi suba ak képp ku mënti doon nag na ñu bàyyi xel kenn mooy Amadou Ba ndax Sénégal laaj na ñu xam lan mooy njëriñu réew mi jot nañu xam fan la réew mi jëm ak jeunesse su réew mi nañ gën a bàyyi xel. <laughs> ñoo xam ne seen àdduna fen sos fen sos ah montage teg fii wax fii lijjanti fen sos. sama gars yi vidéo yi ñoo ko seetaanandoo dégg nañ kàddu yi nga xam ne nii kii di Fadam 2 woon na ko ci jamonoy campagne bi di jàppale ki nga xam ne nii mooy Amadou Ba mais dañuy wax Fadam di wax waa ahlu làmb di wax képp ki nga xam ne nii yaa ngi yëngatu ci sport kàddu yi nga xam ne nii kii di Birame Souleye Diop yëkkati na ko. askanu Sénégal ñoo ko sàkku ci nguur gi nga xam ne nii moo fi nekk askanu Sénégal moo gisoon ni nga xamee ne nii nguur gi fi nekkoon noonu la doon joree li nga xam ne nii mooy ministère yi wala li nga xam ne nii moo jëm ci wàllu gouvernement bi li nga xamee ne nii lañ doon joree xaalisu askan bi ndax tey jii ne bu leen fàttaliku ne li tax ñu jëlee fi kii di nguuru Macky Sall mooy lan souffrance bi nga xam ne nii sénégalais yi moom lañ nekkee woon ak ñi nga xamee ne nii lañ doon pasar pasare alalu réew Birame Souleye jóob nag kàddu yu mu wax askanu Sénégal moo ko wax moom mu jotali leen ko ndax tey jii nii ñi nga xam ne nii ñoo yëngatu ci wàllu sport ñoom am nañ seen ministère bopp te seen ministre lépp li nga xam ne nii war na ci sport bi dina ko ci def dina jëlee fi nga xam ne nii foofu la sport Sénégal nekk yóbbu ko ci niveau bi nga xam ne nii mooy niveau bu jéggi dayo incha allah ci kaw la ñu jàppale leen mais li nga xam ne nii moom la Birame Souleye Diop wax. loolu lu raisonnable la ndax tey jii nii ñi nga xam ne nii ñoo fi nekk di rëy seen làmmiñ di yëkkati di wax naan di wër ci plateau télévision yi naan dañuy jéem a critiquer kii di Birame Souleye jóob boo ci xoolee ñëpp la majeure partie kenn lañu doon jàppale Amadou Ba lañ doon jàppale ndax lan ndax seen poste ndax lan ndax dañoo bokk ci ñi nga xam ne nii dañu doon toog muy dox nañ ko wax te baat boobu noonu la ñuy bañ a dégg ñoom dañoo bokkoon ci ñi nga xam ne nii dañuy toog muy dox ndax lan mooy ndeyu di jël ay match de football wala di jël ay ngénte di jël ay làmb naan da nga koy tuddee ñi nga xam ne nii mooy ci ministère bi lañ nekk yow bu nekkee da nga bëgg a sargal nit mën nga ko sargalee ci beneen. anam mais pas diko sagal ngir lan da nga bëgg mu yëgëti xaaliss jox la ci na wala amul wa ah, lool dafa le dëgg du romi nopp na ñi nga xam ne nii ñenn ci mbëru lambi pa ñëpp nag nag gis nañ koy ku ci mel ne tafa mbër moom patriote bu mag la moom askanu sénégal moo ko taxoon a di ama balde et cetera et cetera ku lim juum mais la major partie ñi ñuy wax mbëru vip ñi nga xam ne nii laal millions yi ñoom dañoo demoon ci rencontre ji ki nga xam ne nii mooy Macky Sall ñu toog waxtaan ak ñoom askanu Sénégal ñu ci ëpp mere leen kon tey jii nii ñooñu noonu kii di Birame Souleye Diop bu toogee ne ne bu ko kenn tuddee làmb bu ko kenn tuddee match de football wala bu ko kenn tuddee ngénte ñun askanu Sénégal d'accord nañ ci ndax tey jii nii mënuma comprendre dañu ne rupture lañ woote dañu ne jub jubal jubbanti comme président Bassirou Diomaye Faye nu ngi ko waxee ki nga xam ne nii mooy ministre nga xam ne ni yow sa salaire bariwul nga bëgg ci dundal sa njaboot bëgg ci faj say soxla bëgg ci fay say luyaas fay say courant say ndox xaalis bi nga xam ne ni moom lañ lay fay li ciy des du bari bu nekkee yow danga nga woote jub ak jubal ak jubanti munoo jël ay millions di ko maye. ndax lan dañ la paree ne bis wala dañ la tuddee bis kon loolu noonu xaalis boo foo koy jëlee ci xaalisu askan bi nga koy jëlee loolu mooy dem ba pousser ñenn ci ministres yi ñuy sàcc nañ ko wax dee loolu mooy dem ba poussé ci yenn ci ministre yi ñuy jël alalu askan bi di ko neex la ndax lan dañ leen tuddee làmb gis nga nag bu nekkee ne ne dañoo bëgg Sénégal réew bi tegu ci yoon Sénégal réew bi jub nañ leen waxante dëgg pas di jël ay nit yi nga xam ne nii seen pexe bu juboon tey jii ni président Bassirou jommay fay du falu ndax lan gis nañ ki ñu doon jàppale muy Amadou Ba pour lan ñu continuer système bi nga xam ne nii moo fi nekkoon mais sénégalais yi voté yii di président Bassirou Diomaye Faye rupture la ñu woote te ku wax rupture wax changement. na wala amul. waaw ah, loolu dafa leer. dëgg du am nopp. làmb ji nag kenn critiqué wu ko ndax lan ministre bi yor wàllu sport lépp li nga xam ne nii war na ci làmb dina ko def bu jëree jël budget jagleel ko waa làmb wala mu jël budget jagleel ko waa nawetaan wala mu jël budget jagleel ko yeneen sport yi nga xam ne nii ñoo nekk ci Sénégal. loolu liggéeyam la dina ko def mais li nga xam ne ni moom lañ doon gis mu doon lu jéggi dayoo kuy tëgg suwaaree tuddee ko ay plus de cinq ministres kuy tëgg ab tànni bi sa tuddee ko ay ministre ngir lan ñu jël ay enveloppe di la jox te enveloppe boobu noonu du mës a jóge ci seen poste mais ci xaalisu askan bi lay jóge bu nekkee nag lii moo tax ngeen di génn di wax su lay Diop lu mu wax ñun ñëpp ñoo ko wax bàyyi leen seen naafeq gi ngeen nekkee yéen bi ngeen politique jotee da ngeen dem jàppale ji leen neex bu askan bi soxlaa woon ci manifestation yi yéen da ngeen toogoon seen kër yéen yéen a bokkoon ci ñi nga xam ne nii yéen a doon critiquer askan bi naan ku dee yaa ñàkk jarul ngeen di génn di xeex jarul ngeen di def li di def la tey jii nii nag loolu lépp jeex na président Bassirou Diomaye fay président sénégalais yépp la lépp lu wax ci anam bu nekk ci fànn bu nekk ci activité bu nekk teg na fa ay ministère te ministères yi dinañ doxal liñ fa war a doxal dinañ fa def liñ fa war a def mais kanta di yëkkati xaalis di ko neex la ndax lañ dañ la parrainé wala di yëkkati xaalis di ko neex la ndax lañ dañ la tuddee soirée loolu dafay jeex loolu du li nga xam ne nii mooy luy wéy ndax kon nag nañ leen bàyyi di nekk di critiquer su lay Diop lu mu wax sénégalais yi ñoo ci gis seen bopp yéen dem leen ngeen liggéey ji ngeen bàyyi nekk ci réseaux sociaux yi di di fenal ñi nga xam ne nii ñooy nguuru président Bassirou Diomaye Faye wala di critiquer ñi nga xam ne nii mooy seen ministère ñun rupture lañu woote président Bassirou Diomaye Faye ak ay ministre am lépp lu ñu def ñun bëgg nañ jub jubal jubanti xaalisu réew bi nañuy xam fu ko ministère yi di dugal nañu xam nguur gi fu mu koy dugal lu ñëpp bokk dañ koy naan fàng ci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 partagez parce que ça nous aide vraiment.